yeah. chéri ba ma nobee chéri boo ma man bu dee man nga doy loo sos nga ma chéri bul jaayooti jar nga bul lambati dañ nga yegsi nga fii la yegsi nga fii la ma déglu loo waxi noonu ma déglu loo Wahin bañ picc mu lakk gennoon moom di gën a bëgg moroom mu leen baale dañu lay jay nara sawaaji amul solo ñu ngi lay jay nara sawaaji mënul solo loo gis ci waaji ba mel si nii ki fum la dugal util jàngat baaxul nee na doo fi baaxul noonu neex le nee na doo fi neexul waaye dogal ba wéy na bu leen dégloo bu leen xool bu ñu la bañal ta xam lu bu leen dee man bu dee man nga doy loo sas nga chéri bu dee dang ma nam yow sas nga chéri yow bul jaayoo ci janga bul ci danga chéri yow ci yow ci danga te te Gorée DTV chez vous, ce sera du 14 au 15 octobre 2016 48 heures de show de live de divertissement li nga et émission toi même tu sais ce sera ici dem plus loin plus haut et plus fort DTV vive la magie de la télé Mes fils justement il euh, y Hip Hop Awards yi bu le 3 décembre Sorano le fait ou non ok ok invite comme ça yeah Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. kolima beegul tere ji amul laalo kolima beegul tere ji amul kolima beegul kolima beegul ngari bannan faro rogo dem na xam o farin fas fas fas fo setta yàlla wéral baat bi kontaan ci yéen bu baax a baax. asalaamaaleykum yéen waa Pikine rawatina waa Pikine est ñi ngi leen di ziar di kontaan ci yéen bu baax a baax taxawaay bi rafet na toogaay bi rafet na macha allah olof day wax ne kuy wàlliyaan sa dëkk dafa tëggul te fii rek la muy Pikine. Euh, ngeen am nag monsieur le maire boo xamante ne kenn dootu ko laajte ndax ne ngeen ne moom mooy nàmpal àdduna. Mmh. tey nag ngeen ànd ak waa DTV ñi nga xamante ne ñoom ñoo tax adduna yëpp fi mu nekk nii xàppi foo mën a ne. foo mën a taxaw foo mën a toll boo jàppee DTV mu leer nañ xanaa kon ne tàccu ba tax na tey ñu ànd ak waa Pikine ay jigéen yoo xamante ne macha allah mën nañu la ñuy def ñu jàkkaarloog ñoom ah def nag tey. ñu ñu ñu ñu jigéenu Pikine yëpp di togg nag cere. waaw. ku ne xam nga lu ci cere tam xarit. waaw waxal loolu ca kaw. taaje boon. falaa koy dagg ma ñëw. xaaral ma ñëw pareegu ma ci yow de xam nga lu tax ma ci moom. Euh, dañoo ñëw monsieur le maire jox ñu nag bu bu bu bu bu tol nu ko neex macha allah te bu ko neexoon wane ginnaaw waaye dafa ñëw taxawu jigéenu pikin ndax nag olof day wax ne jigéen góor gu baax goo gis jigéen ju baax a nekk ci ginnaawam di ko jàppale. waaye man d'accorduma xam nga lu tax d'accorduma xam nga lu tax d'accorduma monsieur le maire dafa nekk ci suñu wet ñu taxaw ak moom nii aligné ñëw ak moom mu ñuy jàppale su ko defee teraanga nag teraanga koy fay. ndax nag kuy def teraanga dafa bëgg ku ko wax. ndax nag olof day wax ne dëbbalantey tax ab dog mokk te nag monsieur le dafa def lu rëy kon ñu dem kuy mooñ kuy mooñ dangay sattu kuy mooñ kuy mooñ isaaxa mooñ kaay leen kuy mooñ yëf neex na lool waaye nag ñun góor ñooy suñu kilifa ndax góor ñi rek la am ñooy suñuy papa ñooy suñuy nijaay ñooy suñuy càmmeñ ñooy suñuy maam yu góor kon defe naa ne bu ñu ñëwee ba fii monsieur le maire teral teral ñu teraanga ji mu ñu jox il faut nag ñu jox ko micro nag mu wax dama ni taaje boon tere taaje mu neex damay taaje boon tam xarit gi li jar na taaje boon Daniel Tama dafa gee mu bëx bëxi don Isaaxa Diop ki jar na taaja boon moom monsieur le maire mi jar na taaja boon ñun de dañuy cere am na aja lool ñun de dañuy cere am na tamaate aja ñun de dañuy cere te am na boor aja ñun de dañuy cere lay lay li laa ku ci takk sa loxo du miti e basa basa mbégte bu rëy rëy rëy lañ ci am. Mhm. ndax tay c'est une très grande fête pour la commune de Pikine Est. ndax bés bi mu fi am. Mhm. té ëppoon naa ñàkk am. dëgg la vraiment événement bu mel nii. Mhm. di ko gërëmee waa DTV. ci mhm. choix bi nga xam ne ni porté nañ ko si commune Pikine Est. Mhm. mais nag Pikine Est dañ nekk commune boo xam ne dañoo pare. dëgg la nga xam taxaw. ndaw ñu jóg taxaw. mag ñu jóg la te ku a la vraiment di am mbégte lool. ci choix bi ñu porté si commune Pikine Est. di wax ne ñu ngi sàkkuwaat aussi ci ñi nga xam ne yëpp ñooy Nous nous, nga xamné de ñoo doole leen mm-hmm. ñoo xamné kaf la mm-hmm. pour mëna ambiance mm-hmm. créer la fraternité dina créer l'union des cœurs boole suñu xol yi suñu yi pour ànd très bonne fête de Tamxarit ndeysaan loolu rafet na nan nga dundee tey waa DTV ni ñu ñëwee ñëw fii ci sa biir diwaan defal la tey émission bu mel ni tey. dëgg la. merci beaucoup. dëgg la. dëgg la. ndeysaan ndeysaan dëgg la dëgg la dama fekk ne xëy na li mhm. nga xam ne moom lañ soxla woon ci taxawaay ci jigéen ñi mhm. ñu soxla woon taxawaay ci askan bu juboo mhm. ñu war a mën a àndandoo passer une très bonne fête de Tamxarit loolu noonu yaakaar naa ne dañ ko gis ci commune Bigness vraiment ñu dina ci gërëm ci choix bi nga xam ne bokk ci ñun di rafet woon seen liggéey ndax day ci bi wax dëgg yàlla mooy télé bi xew dëgg la tey télé la boo xamante ne eh, tàccu leen loolu waaye day télé bi xew tàccu leen lii dëgg la vraiment nekk une télévision très suivie. dëgg nationale et internationale. merci beaucoup nekk suñu fierté ñun ñëpp. Mhm. ay Sénégalais lañ. Mhm. ñu gisee suñu ay doomu réew mi. di am taxawaay boo xamante ne tey suñu sag lay doon suñu jiital lay doon. tey ñun vraiment mbégte la ci ñun. Mhm. ñu dalal télévision bu mel ni denc bi. Mhm. ñuy wàllu équipe yëpp ñuy wàllu bu baax a baax madame Mbacke. Mhm. dëgg la lii suñu bay jaxate doon wax naan waaw boo amee am nga solo. waaw dompat sax ci la bokk. dëgg la amiin leen loolu tàccu leen loolu nga joxal ma madame la maire. jigéen du man góor fayaat ndeysaan waaye nag ñun tey dañoo gën a am ba booloo bokk ndey ak macha allah yeggalil. moo tax tey seen jotaay bi macha allah rafet nii. moo tax ngeen xam ne tey yéen waa DTV gëm naa ne de dem ngeen fu ne. waaye gis naa ne déggoo gi ngeen gis fii ci Pikine. defe naa ne de mosoo leen koo gis fenn. dëgg la kon jigéen ñi tàcc leen seen bopp. tàcc leen seen bopp waaye borom cere yi. waaye man li ma gis dal na sama xel. dëgg la. ndax ñoom ñëpp ñu ngi toog groupement bu nekk defe naa ne yaa ngi def sa côté.

cere <laughs> baase siin waaw bomb ba mu saf baase siin waaw ñu bomb ba mu saf ñu demaat ci gaa yi léegi euh, dañuy dem ci ñële ñoom it ba xam ñoom it ban cere lañ ñuy présenté Moussa le maire nun ci dañuy togg cere baase salté bisu tam xarit gii tey dañoo bëgg a togg cere baase salté jagleel la ko ak kullu koo ko yéene ba ci Ablaye Timbo Adja baa ngi nii nu dani eh mbaay danuy jaga gis ak Mamori tawu Mamori Mamori madum ndaam kenn demul banu danuy jaga danuy jaga dan ay dara eh oh eh mo voilà Iris caa ñu dem taala nag lan bëgg a togg def ba mu baax barke Serigne Touba dara jeexut barke Serigne Saalu Mbàkke sunuy mamee ngi nii dara je ko suni ngi ni lépp a ngi si biir lépp a bir, si biir mame ngi gizi bir, ajaa ngi bir, biir dibjaa ngi si biir laajaa ngi si biir lépp a ngi dox daja ku daan rere tarale tey nga reere ñetti ñun ñoy groupe sa ñun dañuy def ba muy ñun xam nga groupe nopp sa jëkkër ñun defuñu lu may ànd góor ñi ndax ñun góor ñee ñu ñor Patisen nag dafa ñëw ñun ñu ànd ak ñoom ñu nduggal ñu ndugg mu baax ñun nag dañuy sant yàlla bu baax julli ci Seydina Mohamed di sang-sang bi damay raam rek léegi li ñuy togg nag dama koy biime rek ñun Patisen dañuy sant ci moom ndax liñ nar a toog mooy cere siim nar koo cere ba mu saf xam nga fii dara manqué wu fi siim rek muy toy ba tararari la ñuy def am nak bu baax fe ñu nar ko cere rek ba mu tëppana ma reul ñun nak ay togolok lañu dañ koy def ba mu tërërëri fu mu nekk euh ñi nga wara def na ne 19 h dina fekk gaa yépp pare légui nak fu mu nekk ni yow ya wara joxé nak ku ku d'avant bi fu mu nekk ni ba xam <laughs> waaw bi ñu defee vraiment tournée si stand bi ak quatre groupement yi nga xam ne yëpp ñoom ñoo war a nekk en compétition mhm. gis nañ ne daal ñoom ñëpp pare nañ mhm. lépp lu ñu waroon am ci ndugg mhm. lépp lu a li nga xamante ni daal mom lañu wara am pour cere ji neex. Mhm. yaakar naane ne am nañ ko. li dess nak moy ñoom ñepp ñu souhaiter len bonne chance. Mhm. di leen wax ne la tay ñepp ñoo nara gagner dëgg la fête la bésu tamxarit la. Mhm. ñu ñaan ñepp ñu comprendre le. ne xëy na foo la kaf la ree la te Pikine Est mooy gagné. Mhm. Sénégal mooy gagné. Mhm. TV mooy gagné. Mhm. vraiment Patisen mooy gagné. ak ñëpp ñi nga xam ñoom la ñu àndal ci bés bi. dëgg la donc di joxe coup d'envoi bi. dinañ wax ne mun nañu départ ñu xool nag fii ci kanam tuuti. kan moo dàqale cere. bu ko defee ñun ñëpp. ñu daal di koy félicité mhm. li nga xam ne moo ci aaju ñu daal di koy def mhm. vraiment di ñaan yàlla ñu teewe ko ay at yu bëri mhm. amin amin amin kon nag ñu dem yaay kat kat ci kaw tali ku la dàq daw nga gën koo riis kat kat ci kaw tali tàccu leen waay ñii tàccu ñii nasaf nasaf asaf BTV toj na àdduna nasaf nasaf asaf BTV du ñu seetaan ñu fi moo yor suñu moo yor suñu feeling dañuy teral BTV du ñu seetaan ñu fi ñaaw eh waa BTV waa BTV ana BTV ana BTV bi xew ci jamono nosaf nosafa saf wan leen waaye suñu gaa yi kenn ku ci nekk nag dangay wax ni nga toggee nan nga def ba toll fi nga tollu mu ngi togg cere siimu yàpp bi ñu ñëwee raxas nañ raxas suñu yàpp raxas nañ ko ba mu set defar ko ba mu baax teg xolli nañ suñuy lujum raxas nañ ko ba mu set ñu ngi bomb suñu ñu ngi laal suñu cere fas ko yéenee delloo. ñun cere ji du ñu rosi dañuy ñulu diigal diigal rek def ba mu baax ba kese def suñuy ajaa def suñuy baax. kon jeex kese ñu dem nee naa leen ñi ñu àndal mooy ñi nga xamante ne ci wàllum guur rek la ñuy dox waaw ci wàllum togg taalaale tëmbal leer tëmbal ci yooyu la dox ñoo ngi fii nag. ci a a wa wa engagé kon yéen a ñu engagé bisimilah yéen a engagé DTV bisimilah aca la ñoo ngi nii rek di togg suñu cere ñun duñ ko rosi dañ koy diigal rek mbaaya ah, dañuy diigal bu ñu paree rek ànd ak Adja def ba baax ndax cere judduwaale tubaarkàlla moom la mag ñi daan def te loolu la ñuy roy dañoo bëgg ñu xam ne nag taaji boon ñëw na ñu ànd ak suñu meer rek bëgg a bëggee kon baax na yéen a ngi dégg membre les les les zili ni ok ko ñu dem ewaa eh ewaay eh xoolal ma lii baax baax baaxata bax baxati ajaa waral lii xam nga ni bax baxati ajaa waral lii eh, baax baax e bax baxati guuba daa neex baax baax e engagé nag xam nga engagé nun moonu ñor maa du da nga ñuy engagé paaka nga yor de engagé moom moo nu no talé taalee engagé ni mu talé fu la fay da jom aja no talé def ci aja ba mu saf xolal riki aja ba mu neex xam nga lu nu def am na sagan geegi sagan sagan geen gi sagan bu da ju raj géej gi sagan ah. ew da ngeen di nelaw yewulen leen boo na dekk bi mo xanaane jaxase na Sénégal moo xanaa ni noo toogee ay ni ma toogee mbay xam nga nu ma ah. xoolal yàpp wee ñor tamaate Adja dugg mu dogodog am guub ndax am na laaj am na pataas am yomb am na pombiteer tëmbal naa ci supame ana ñambi ee eh, ñambi juy ñor ak carotte moo naa ci nawe eh. ana poobar ay laaj def nañ ci poobar ba mu neex kenn demul ba ko. eh poivron na. Eh, def nañ ci ba mu neex guy ana lem nag ana lem ana lem nag ana lem ana lem nag ana lem moo gën a neex fii nii moo gën a neex fii nii moo gën a neex fii nii ana ngeen gaa yi ana noo leen noo toggee membre des jurys membre des jurys ñooy xool li neex te am guu dama bëgg ngeen wax ma nag noo leen taalaalaale ba mu ba mu xonk nii dama dama jël sama ci raxas ba set ma fomb sama ci ba set ma raxas sama loxo ba mu set ma jël sama ajaar tama def si ba dog ma déggal sama yàpp mm-hmm. lii de laa def bi si kanam nag rabatu bët yal na seigne Fall may dam barke seigne Tuubaa motax mu xel li diw ni kon bax na ñu dem feneen aca fi mo gën neex fene fi mo gën neex fene fi mo gën neex fene fi mo gën neex fene fi mo gën neex ubil e eh, ubil ubbil ubbil may ma may ma may ma may ma nga ne lan dolli leen ma naba xaba naba naba xaba yàpp wi ñor naba xaba patas bi ñor naba xaba ñambi ji ñor naba xaba diwlin ji tëmb Eh, mu am gu mu am gu te léegi nag damaa bëgg ngeen wax ko ni ngeen toggee cere ji ba tax muy bax baxi ni te amagul tamaate mel ni lu doore nii ba pare ma ne ko cere gi niñ ko toggee neen kese la dañoo raxas suñu ndawal ba mu set daal di ñuluk suñu cin daal di koy diigal ndax cere diigal doo nga ci neex yóbbante ak suñu tuuti ajaa ndax mu mën dugg yàpp yàpp mën saf daal di jël suñu laaj tuuti yóbbante koog ndawal gi ndax mu mën a dugg ndawal gi ak tuuti xorom ndax mu saf ba loolu jàllee nag ñu ngi ci suñu liggéeyam di defar ñu ngi muleen suñu tamaate suñu paree diigal suñu lépp teg foofu suñu baaraam ba ci kanam ñu fas yéene koo rek dolli ci saf safal ak Adja dem Adja rek ba mu saf saf boo leen demee ba ñëw boo leen ñëwaatee fekk ñu kon raas xi ban kuy fàttaj mu gën fee neex eh raas ki ban ku jàpp jaan doo faale jiit raas ki ban ku jàpp jaan doo faale jiit e ñëwal montere ji kay leen ñu montere ji e dikkal montere ji kay leen ñu bombu tere ji ku montere ji ku mën a montere ji yéen a mën a monteera ji Pikine dañuy monteera ji dañ ko defaal ak a mën monteera ji kuy monteera ji yéen da ngay monteera ji kuy monteera ji yéen a ngay monteera ji kuy monteera

mo cere ti cere ngono detivi safu neno cere simo junu sankal baɗet camiya ngayra ay tawi men mi tanan cere neex kay moñ kay moñ dikkal moñ kay moñ ñewal moñ kay moñ danga mana moñ kañu moñ kay leen ñu moñ na ñoon engagé bi engagé na engagé na engagé bi kay mooñ dikkal mooñ kay mooñ ñëwal mooñ kuy mooñ dangay sattu dangay sattu kuy mooñ dangay sattu dangay sattu kuy mooñ dangay sattu tere suma juru tàngal ba def jameer ngay raay tey mi tanan tere neex tere xam nga engrais cere ne cere ja am na karot cere ja am na tamaate na cere ja am ko nu ngeen di bombe cere nu ngeen di bombe cere ji nu ngeen di mooñe nu ngeen bombe cere ji nu ngeen bombe cere ah, tey jii am na jombos ndax am na karot cere ji am na pooro cere ji njabali fu mu féete cere ji am na soble cere ji am na poobar cere ji am na ñambi cere ndaam cere kay, cere kurum nam sa jëkkër tere tere tere noo leen ko tere ak dolli def ci aja ak bol kaay tam waa Pikine waa Pikine waa Pikine nu ngeen bamba jara ji nu ngeen def ba cere ji. dañu ko yomb cere ji. cere ji am na yomba. cere ji am na ñam bi. am na poore ba xam. ayu cere ji am na poobar. oo oh, cere ji. lal ngeen lal ko su ma fayee suma lamp ngeen di ko taal su ma génnee sama kër ngeen woow wi ma soo xamoon ni ma mel nin ma taamoo nin ma seetloo ak jàmm ji ci man ak yar gi ci man kay ma jox la suma teraanga àdduna tuute cafu di ma fëgg eh bien ça c'est quoi lii lu mu doon sonal ngeen ma lool ne la wattuma soo xamoon ni ma mel jóg leen ma xool jóg leen ma xool jóg leen ma xool ana xaritu jëkkëram yéen laa a ko yor yéen a ko yor awaay awaay bakkata bakkata bakkata bakkata mama ma ñëw mama ma ñëw jóg leen jóg leen jóg leen jóg leen paase. cere paase da ngay defar sa gerte. waaw ba gerte gi nooy nepp. waaw nga rëcc sa cin. boo rëcc sa cin. def sa yi sew. sa yàpp boo xool ndax ñor na wala ñorul nga door si def sa gerte ndax boo si defee gerte gi te yëf fi ñoragul day far te yëf yi du ñor su ko defee dañuy bàyyi ba suñ yàpp ñor ba ñu làmb ko door say def gerte gi dëbb suñu nokk si nekk si pays mu ñor lañ daan cere coppati ne ko ci pay mu saxaar xeeñ lu neex mata mata bàyyi cim réew xaaral xaaral xaaral xaaral eh eh eh kaay kaay kaay kaay kaay dangaa jël mag il faut ñu jël xale ba xam ñoom it ni ñuy toggee seen i cere cere jamono ji ñu toll ndax léeg-léeg nga gis ku togg cere mu dar de ubbi gaz bi muy fërërëri mbaa ngeen boyal ba mu sens muy fërërëri te togg nu mu mënati demee rek dafa war a luy cere lay cere démb la cere lay cere démb la togg sa ñeex ba mu baar nga mooy sa cere ba mu neex daal ko ba saf bës ko ba mu tëdd boo simeer ah, cere dañ koy bës ba mu tëdd waaw cent pour cent jumoo de cere séeréer rek laa xam juugu maa nga faga nag mais nga nag ki nga jomalaani loolu ngay wax nag mënuma koo dégg kon ñu dem <laughs> jaay laa lo fa cere ja ñore jaay laa lo fa cere ja ñore jaay laa lo fa cere ja ñore cerey ndawal cerey ndawal ay cerey ndawal ndawal gaa yi foo leen toll ajaa ajaa foo ajaa foo ajaa foo toll xaaral xaaral xaaral nak ñu xol ndax mami bi eh, eh, eh, kat gi kat gi kat gi kat ngi ba fi oh wallahi laaxi la tuy teyal teyal ñu xol ndax ndax katu mami bi ñew na wala deet wala gu mami bi genn na wala deet ah li ñuy xey neex na fi mu ne hmm mm-hmm. ah les jiri jiri bu ñu waxe rek aduna tukki na de def na effet mami togu mam def na effet. waaw waaw ak yu saf safal yoy ci biir. Adja Giriyaar lakk yap ya ko wax de man damay dox ci lakk yap xam nga ci goor rek la xam. waaw comme yalla da dogal ma nek ci expert. waaw macha allah kon ñu yóndu keneen ba ca kanam. waaw mu ngi nonu kon ñu dellu ñu